jërëjëf président monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seen collaborateurs yi ngeen àndal di nuyu directeur du budget di nuyu monsieur Bambaka di nuyu monsieur Niang di nuyu mes collègues députés monsieur le ministre dañ lay féliciter féliciter gouvernement président Macky Sall félicitations yooyu suñ koy wax 2012 ba léegi gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen def su ma koy wax man maa ngi jógee dans le département de Linguère zone sylvopastorale nekk dëkk bi nga département bi nga xam ne moo gënoon a mar ñàkk ay yoon dara dara musuñu ko am président Macky Sall bi mu ñëwé en cinq ans rek rek la ne na li nga xamné ñun wa jollo bi mu fa ñëwé liñ ko njëkk wax moy ñun dañoo mar bi mu ñëwé mu défal ñu 90 forage ci jamono yoy défal ñu la route de Daara Touba Linguère defal ñu la route de Louga défal ñu ay infrastructures yo xamné ñun depuis l'indépendance amuñu ko kon su ñëwee tay ji ñuy def programmation budgétaire dañuy am yakine budget bi ni ngeen ko teggé département de Linguère dana amat wàllam dina président Macky Sall mom dans ce pays ñuy électrifier 84 villages par par an mu def 440 villages Nous avons ñew 86 km de piste Nous muy def plus de 600 et quelques Nous mo ñew fek hôpitaux yu amuñu rien qu'en quelques années mu def 9 hôpitaux yu 18 centres de santé 300 18 postes de santé 300 Euh, poste de santé loolu ku ko def bu lay laaj milliards yi nañ ko xool foofu milliards yi ñu fiy tudd dañuy sant yàlla ba saa yu ngeen ko ñëwee indi ko fii ñu voteel leen ko ngeen def ko fi ngeen ko war a def yéen a ngi yokk yoon yi di defar tali yi jàppale xale yi ñu liggéey jàppale askan wi surtout nag la vole social monsieur le ministre Sénégal ci président Macky Sall rek lañ gisee aw askan di fayu weer nu mu boni boni nga mën a yóbbu sa doom mu jàngi mën a am loo suturlawoo kon dañuy ñaan Sénégal yokk ba loolu gën a mën a mais kon le président Macky Sall monsieur le ministre président Macky Sall amul morom bi 423 milliards la masse salariale fa la mu ko mille et fonctionnaires loolu loolu la ci mu egg président Macky Sall moom rek rek rek nga gis àdduna bi ñëpp wërngal képp ñu nangu ne def ci Sénégal

ku waxal yalla ku waxal yalla la wax de xam ne président Macky Sall bilan ndax bilan kenn du ko attaqué kenn du taxaw fi attaquer bilan président Macky Sall soo ñëwee fii li nga ma fi wax da ngay déformer des chiffres déformer des mots déformer des propos pour mën wax ci président Macky Sall mais liguey mom doo ko laal parce que dafa battre des records battre des records mënut a weesu lu fi way def en 60 ans en 10 ans nga def ñettam wala ñentam tay nak wa Golor ya waxuma len Jarama le président Macky Sall waye jaaraama Ablaye Wade président Ablaye Wade li gene waye président Macky Sall dafa ñew battre des records na ngeen ñuko nangul dafa ñew fekk li nit ñi doon def mu diko def ñent dafa ñew fekk tay ji fekk fi ma taxaw ni di wax man tay ku ne xam na ne ku ne xam na ne Sénégal Moussa na gis pont bala nga ka gis ken xamul 32 km autoroute autoroute péage mu ñew def plus de 100 et quelques piste yi ñuy wax lépp mu ñuulal dans le département de Linguère monsieur le ministre balaa may jeexal préfère loolu dañ ko déggoon mu nekk lu sedd suñu xool dañu bëgg ngeen budget bii di ñëw ñu boole ko ci ba pare démarré ko dañu bëgg piste yi nga xam ne moo nekk dans le département de Linguère mu ñuulal lépp mbuula nag jot na lettre que ne am na forage alhamdulilah waaye monsieur le ministre bëgg nañ mu bar parce que ndox ma naka dina lool te dafa yàgg ay at a nii may taxaw ci perchoir bi di ko wax beneen bi mooy monsieur le ministre boo demee le président Macky Sall depuis 2012 bañ ko joxee réew mi suñ xol tangul de suñ xol tangul ci mom de ndax réalisation yi mu def c'était pas évident ci monde bo xamné inflation mondiale dafa reuy dëkk yépp ngi nërmeelu fo dem ci Afrique ñu ngi sonu Sénégal mu taxaw rek debout ba paré ku bëgg a lekk ku bëgg nan nan waye waaye gi ñuy wax fépp la amé fépp la yëngo fépp la metté waye Sénégal ku sañon tay ji Afrique fo tollu dëkk Sénégal jaaraama le président Macky Sall je vous remercie. merci cher collègue. la prole norte.